lancé rek fessu non bi ñuy wax Baye Modou dafa ñew fekk sama auto taxaw mu ci tiaw yi dem ñu ma ñu ma kay laaj ñu ne mu ngi Modou Lo heures ba legi ma fi diko wër mënu ma fexe ba gis ko li mom kala Modou Lo ku xam ci fair-play nga ko xam taaliba sëñ Babacar soxlawul yëpp jaamur ku muy àndal soxlawul yëpp jaamur mais boy dañuy yàqal Modou Lo daanu ka man mooy sama mbeur man mom lay top jamono lay bay ba léegi waaye damay door war ba paré dem sama kër sétani ko ñemee mu def oh loolu mu demee fooy. Pise mu ngi jaar ay trente lay jaar. nga wax si Modou ngeen. Modou Lo Modou Lo la kooku jamonoy laaj. caaxaan yi heures koy ba les deux waaw télévision rek ak déggante ak moom téléphone bu ko defee jeex na dafa nekk si liggéeyam ma nekk sama liggéey ku si nekk dafa am loo war a nekk nekk si quoi loolu kese la Modou yàlla ma yàlla may ndam Achambar mu ngi noonu sa waay maa ngi lay char maa ngi lay bëggee maa ngi gis nga yaa ngi sol t-shirt Modou Lo yor sa mbuus foo jógee nii ñu ndam rek ñu ñu Colobane waaw suba de Modou Lo démb ma si làmb ji sopp Modou Lo waaw la ko wax ñaar nga amoon yow ah? man ko ah bu ma ko sonné ay ay ay 30 ans ak 40 ans. dégg ma nga ni. ah. dégg naa la ñaata nga ñoom. ay 10 ans rek. ay 10 ans rek. 30 ans 40 ans. damaa juum ko waaw. mais Modou yàlla ko yàlla may ndam rek Modou yàlla ko yàlla may ndam rek li ñaan nii ah? yàlla ko yàlla may ndam rek waaw te day am ndam sama soob yàlla. waaw maa ngi bëgg a wax kay yàlla ko yàlla may ndam. yaram bi téye ko. <laughs> loolu moo fees ñu xam waxtaan ma yow. seen yaram bi nga ne ma ko may ndam rek. man yow. da am ndam Pam Ndiaye laa tudd. fooy liggéey Colobane. Colobane laay liggéey. may ñaan mu yàlla ko yàlla may ndam. te day am ndam bu soobu jaaf Ndiaye bi mi ngi noonu. booy boo bëgg wax waaw 2024 ñun ñoo siy njëkk daan. Oh, ma la bu toogee man maa koy jël si boppam. ay ñii duñ ko jël ay mbëri pataat yi ñii duñ ko jël ñi ay paja paja lañ man maa koy jël dégg eh, doo xool avancé. nga xool Alaaji ma fii bal gaa yor am na rouge am na orange am na bleu am na blanc am na vert blanc gaa yi ngi dox noonu yor bal di dox les jours waaw. waaw ñu ma ma ma ma reporté pare may wala sama boy xale mel ma tuuti rek mi ngi noonu jëlal ma bari gaa nga dugg kër Modou ñi ngi fi nga Touba mais sama boy ndaw yi ndeysaan man ñoom laa àndal may tey loo bëgg wax. Modou 2024 Modou Modou mooy njëkk daan waa Pikine li ñu doon way dañoo juum yab Modou yab Modou yab ko set boo di nga roi bi ko ngi lay ku baax. Modou Lo papa la la xam ne dafay daan ba pare jël couronne bi boole ñaari mbër ñu bëri. ah bon yow nga lan yow. Modou Sël ñun moom rek la ñuy toog. waaw ah, yow nga lan yow. ku am sa mbër na nga ko téye. bilaay walaay yow nga lan yow. Pikine moom moo ko moom. barki seen Touba Mbacke. booyaa ah. bi nga jàppee dina xam ne lépp dëgg la. Ah. yow loo yow. waaw sa réer bi ngay wax. waaw mi ngi noonu saa dafa am kersa ndeysaan noonu la ak kuy wax yow. Talla eh, tala waroon ana tala waaw tala yow doo tala yow da nga bëgg a al door ku deew waaw mi ngi noonu ndeysaan tout tànk yi supporter Modou Lo yi ba léegi gis na ñu ngi kër Modou Lo si buntu kër gi ba léegi Modou génnagul mais xam naa heure bi soreetul aussi te boo xoolee asamaan dafa niis te saa yal na yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp te tey jii muy diggante Modou ak Boy ay ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi que le maire gagne tey ñu wax Pikine suñu doom day mi ngi fa taxaw mi gàmmuka di def foofu en direct sur Saint-Louis TV mooy moo jot xam naa Modou soreetul xam naa mi ngi préparation bi gars yi xam naa léegi ñu añ dem stade mais loolu la mën a xamal mooy combat bi combat bu doy waar a ngi nii combat bu méttee yi combat boo xamante ne ku yomb ku foog day day day yomb da nax sa bopp mais di jaar képp koo xamante ñu ngi bëggee Saint-Louis TV di wax na ngeen abonné si bi site bi nga xamante xool mi ngi la koy wan loo bëgg gis moo la koy jox kon nak mi ngi non gis nga bali ñi ngi non diga diga di ko joxe mi ngi non di dugg ci bir kër gi gaay nga xamanteni ne ñoo ñoo yoon mystique Modou gis ñoo Mbacke taxaw fi nga xamanteni moy ci buntu kër modlo gaay gi bali gaay gi ngi bali bali yaa nonu noonu gars yi bali gis bal bali vert bi dawna na gi yi bali gis bal bali nonu ñuy sanni bu orange baangi nonu jeul ma bali jëlee ma sànni bali gars yi ngi xëccoo bali gars yi sànni nañu bali booy xëccoo nañu bali saraxe tey lamb tey làmb lamb dafa doy waar waa gis nga li ñu doon saraxe bali booy xëccoo bal bi léegi kam may moom bal bi laa xamul <laughs> bal dina toj de balaa ma fiy <laughs> mi ngi noonu gars yi nan ay bal yu vert yu rouge yu orange yu vert blanc saraxe ko. fii gàttandu fi taxaw ku gàtt rek doo la dara. xoolal bal yi ñuy saraxe mi ngi noonu dama gis mu romb Sa Touba Sa Touba mi ngi noonu ñuy gis gars yi ngi sol blouson yi gars yi ngi sol blouson yi di xaar moo nu génn waaw may ko mu jàll. Kalau masalah sa ya loxo glace El Hadj Malick borom glace bi Saya dafa sonn lol glace bay sedd si kaw mag mi lambu, cai lamb Lambu lamb lamb dafa Mungkin mi ngi noonu nonu balik sarax nañu bale ba pare gis na saako glace baa ngi dem kër Modou en tout cas li la xamal di rombu di wuy téléphone. Mbacké solo na blouson ba taxaw ba pare maa mi ngi noonu ñu xaar Modou Lo pare pour dem stade mais mi ngi noonu Modou mi si biir kër gi maa mi ngi noonu gis nga am yaa nekkal Modou waa di jaar nag ki xamante mooy sama doomu nday di policier di nekk point E di Amadou Fall sama doom baay. di jaar ki nga xamante ni moom it di policier di Daouda Diop bu nekk police quatrième di ko jaar bu baax Sa Touba mi ngi wax Sa Touba mi ngi wax wax na ba joxoñ loxo bi dugg oto bi ndeysaan Sa Touba yi noonu xam naa day waaj a génn xoolal ma mbooloo mi nga xamante ne ñoo nekk fii xamante ne moom mooy mbër di laadum dégg nga Modou Lo bàyyi ngeen dégg am yaa ba si kanam. Touba lañu génn Sa Touba yi génn moo nekk soto bi nii ford bu weex bi def sëñ Saliou si kanam teg mbusu ndox si kaw saa Touba yi noonu di génn ñu jii ñi ngi fi xamante ne Sa Touba Sa Touba yi noonu gaa yi ngi yooxu gaa yi ngi saraxe ndox yi Sa Touba yi noonu saa mooy dox noonu yor oto bi Sa Touba la gi noonu sëñ Cissé ngi sëñ Babacar di romb ak col bu weex bi fii mënoo fi jàll fii mënoo koo fi jàll sa Touba dafa xat dafa xat il bi déplacé wu sa Touba ngi noonu. Modou Lo kese kese waaw. Touba yi waa Saa Touba yi nañu romb. cent mille la eh booy pusal da ko bari de lu cent mille la moo rek lay toog amul leneen da nga seeram sali eh mooy sa loxo eh. ngi noonu Sa Touba mooy génn noonu Sa Touba mooy génn noonu di dem booy defal nii eh doo génn nii. booy def leen mooy génn noonu dem. pardon mais ça jar la. bàyyi nga taw féex. lépp gi baax. na sax sa ba ci kanam incha allah saa mi ngi yëngal bopp bi mi ngi noonu balaa muy jàll il faut que oto bee déplacé wu. amiin.